jataay bi nag euh, liñ ci war a wax. nee na jataay bi nag liñ ci war a wax. dañuy xamle ne noo ngi fi teew rek. dañuy xamle ne noo ngi fi teew rek. te ànd ak ci ngeen nekk. ci ànd ak yéen ci lii ngeen nekk. ci ndigalul sunu kilifa yi tàmbalee ci Sëñ Mouhamadou Rafaay. ci kilifa yi tàmbalee ci Sëñ Mouhamadou Rafaay. li ngeen di bëgg a defee nag. nee lii nga xam ne moom ngeen di bëgg a defee nag. dama ciy gàttal. nee na da ciy gàttal. Serigne Touba Serigne Touba dafa wax ne dafa wax ne buñ ma duyaloon dendub suuf bi ci wurs buñu ma deeloon dendub suuf bi yep ci wurs ma dem siar ji yonent be moom gëna lolou day ma dem siar ji yonent bi kon yene ngi ko koy yene ngi demal kon nag yene ngi koy demal diko defali lolé diko defali lolé mu bëggoon kon nak kon nak liñ ci ñaan liñ ci ñaan moy ngeen jóge fi fi mom ci jamm moy ngeen fi fi mom ci jamm àgg ca soppeem ba. àgg ca soppeem ba. jotal ko ab siyaaram. jotal ko ab siyaaram. def la leen war ci àqi siyaare ba. def nag la leen war ca àqi siyaare ba. te sëriñ Touba nangul leen ko. te Serigne Touba nangul leen ko. moom mu ngeen di demal. moom mi ngeen di demal. bu ngeen ca noppee. bu ngeen ca noppee. faridatul xajj boobu ci topp. mu ne faridatul xajj boobu ci topp. yàlla jox leen kàttan yàlla jox leen kartan aku wér aku wér ba ngeen mën a joxe farata ja ba ngeen mën a joxe farata ja ba mu mat ba mu mat te nangu yaar yëpp te nangu yaa ñaar yëpp nangu aj gi nangu aj gi nangu ziyaara nangu ziyaara